jëm lool Macky Sall buñ sukkandikoo ci réew mi quotidien Macky mooma source a nee na ba tey ma ngay waxtaan ak Abdoulaye Daouda Diallo ndax yéenekaay bi nee na démb njiital conseil économique social et environnemental seen nañu ko ca pale ba waaye tey ji lay wax ak askan wi les échos xëy dinu ko xamal dinu xamalit ne ay waxtaan yu bari am na ndorteelu ay bés baak léegi yéenekaay bay leeral ne Macky Sall ak Abdoulaye Daouda Diallo daje nañu ñeenti yoon ci ñeenti fan yi gannaaw samp laas mel ni ku am tontu laaj yi ñeel jegewoo bi diggante Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo di nu yëgal ne na ja dara la ca la mu ca def ak la mu ca wax la laas xëy yeggeeñu lii quotidien xëy yeggeeñu kàddu Youssou Ndour mi tekki ndombal tànkam di wax la ko waral ci biléb yéenekaay nee na nag jotewul dara ak ñetteelu mandat bi dafa jotoon rek ñu daal di natt li nu jota def fu mu toll fi mu toll nii nag Youssou Ndour nee na daa fas yéene moomaat boppam gàdduwaat itam kàddoom di ci tànneef gu Amadou Ba tekkaaralug responsable APR yi ak fippu gi am di ñu fas yéene janook premier ministre mi mu ne ab fonctionnaire bu mag la mën liggéeyam te itam mën a wéyal plan Sénégal émergent bi Macky Sall rëdd Mamadou Kassé mel ni kuy dalal xelu Amadou Ba naan ko Tamba moom jàppal ni nooy na nepp ndax fukki njiit ya fa fal juróom-ñett ya fas nanu yéene topp ci sa ginnaaw yow Amadou Ba mi président Macky Sall tànn l'évidence gis ne Macky it ministre de l'élevage ni ki ministre de l'agriculture waral yéene kaay bi laaj moo ndax Macky daa amatut kum tabb ministre réew mi quotidien ne ko lum ci mën a doon daal primature di poste premier ministre bi juróomi weer cote de cette élection présidentielle bi daa mel ni góondeetut gaa yi ndax Abdoulaye Balde mañ doon séentu mu wuutu amadu Ba nee na bëggut buñ sukkandikoo ci réew mi quotidien l'observateur xëy di natt Amadou Ba moom ak gouvernement wam gannaaw benn at bu nu fi def waaye l'observateur li mu gis mooy lajj yeggee nanu bilangu consumériste yi dañuy taxawu way jëfandiku yi économiste yi di ñu seen xel màcc ci wàllu koom syndicaliste yaak baykat ya l'observateur def itam taxaw seetlu ci la premier ministre Amadou Ba santaane woon gannaaw waxtaan ya ñeeloon dundugu cher gi Macky Sall moom booba jamono ma ngay xoolaati palangam ñeel remaniement bi ñëppi xaar Idrissa Seck moom la mu gën a mën ma nga ca ndax laas nee na duggati na ci tekkaaral gi mu ne woon kenn gisatu ko déggatu ko ci wàllu politique laas di fàttali na na lii danaan mu doog a dikk vox populi dikk ci mbiri Fadilou Keita nañu gannaaw dossier yëpp jomaay fay juge bi daal dinay diisal gann mbirum responsable nemmeeku tuur mi nga xam ni defaat nañ ko ci mandat de dépôt démb Fadilou Keita lañu koy toppee bokk na ci lëkkaloo ak i defkatu ñaawteef mbaa ñu yëngu ci wàllu terrorisme songu état indi fitna Walf Quotidien ne ko justice kay yemul kott ci fitnaal waa Pastef fi mu ne ci yoonu fatt leen la nekk lii la yéenekaay bi jàngat ci tuuma yu yi nu teg ci kaw Ousmane Sonko mbiram Juan Branco Les Échos nee na jàppati nañu ci keneen Pape Ngiraan Ba boroom hôtel Étoile du Lac lañu jàpp yóbbu ko kaso lañu koy toppee bokk na ci lëkkaloog ay defkati ñaawteef dalal mbaa làq kuy def ñaawteef ak salfaañee dal ak kaaraange askan wi gàllankoor yu mu mën a indi ci kaaraange moo waral préfet bu Ndakaaru nee na mu aaye manifestation bi F24 ak Y'en a marre amal ngir xeex parrainage waaye itam sàkk ñu bàyyi ñu tëj ci kaso bi te politique dong waral xibaar bi neenu F24 nag ña ngay woote manifestation neenu itam fi ak altine daanu dugalaat weneen càkkuteef wu ñeel weneen manifestation wu nu bëgg def préfet moom li mu def mooy taxaw fam taxawoon Sud Quotidien moo ni gisee gannaaw aaye gi nu aaye manifestation F24 bi nu bëggoon amal démb ca place de la nation Mamadou Mbodj coordonnateur F24 waral mu naan ci Vox Populi démocratie bu Sénégal moom fi mu ne daan nërmeelu dara desatu ci ñu des ci bilép yéene jafe-jafe la ñu am ngir ami këyit la ko waral mooy gerew bi liggéeykat yi gox-goxaat yi nekkee waral njiital UNAPES di woote wallu sàkku itam ci syndicaliste yi ak état ñu toog waxtaan syndicaliste yooya ci seen tur Moussa Sissoko may seen secretaire général ma nga naan gerew bi dong la ñu am ngir mën a xeex ba jot ci sunuy àq lii askan wiy dundu ndax gerew bi nag Moussa Sissoko nee na kilifay réew mi ñoo ko war a faj waaye fii mitti te war koo faj enquête nee na mooy ni yi defee Sénégal yéenekaay bi dellu xosantoo ne la fa amoon di bakkan bu rot ci ay manifestation daanaka moo daj réew mi moo ne day réewum France gannaaw ba fa Malick Oussekine faatoo atum 1986 ca lañu xoolaat na takk der yay liggéeyee yooyale takk der Sadikh Niass ci biir enquête nee na nanu fexe ba ñu soppiw doxalin Malick Gakou yit na mu doon doxalee ci tournée bi mu doon amal ci réew mi takk der yi sàkku nanu woon ci moom mu dal di koy soppi ndax ca ngumba ngéwul ndànd ak Louga yépp gyrophares yi itam dafay dakk buñ sukkandikoo ci source a buñ sukkandikoo ci la le quotidien doomi Sénégal yay dugg ca États-Unis ñi ngi ci jafe-jafe yu rëy yéene bi nee na Nicaragua la ñuy jaar mbaa bët saalumu Amérique lay ñuul ca soow ma nag mooy dañu leen di wàcce seen bopp ca yooyale gox ñu jaaxle gëlëm dootuñu xam fu nu jëm mbaa nu nuy def réew mi quotidien ne ko waaye teewut gaa yaa ngay dem waaye ñu ngi leen di wàññi ndax téeméer ak juróom fukki doomi Sénégal réew mi quotidien doon tugg Amérique ñu ànd ak le regard quotidien dugg Canada yéenekaay bi nee na teg nanu loxo ñe doon salfaañe ambassade bu Sénégal ba fa ne ñetti doomu Sénégal teg nañu leen loxo yeneen fukk ña nga leen di wër ku doon wër faali ngoyang yi l'info quotidien mel ni kuy ni waxee dëgmal manifestation yanuy wàcc ca buntu Nations Unies ca New York fa Macky Sall war a nekk diggante fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru septembre jëm ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetteelu session assemblée générale Nations di mbootaayu xeet waaye tukki Macky Sall googa narta yomb ndax yéenekaay bi nee na ñu bari ci wujjëm ci wàllu politique waa Pastef rawatina fas nañu ko yéene xajamal firnde gi mooy ñaari manifestation la gaa yi nar a amal fukki fan ak juróom-ñett ak fukki fan ak juróom ci weeru septembre bi ñaar fukki fan ak juróom weeru septembre bi gàmmu gi di juddug yonent bi ci lañu koy màggal la Soleil dinu ko yëgale nataalub xalif général des Tidianes sëriñ Babacar Sy Mansour gi mu fësal ci xëtam gu njëkk ci xët gu njëkk Vox Populi jamono jooja ñu nu yëgal ne Serigne Modou Camara sumb na coalition xarnu bi jëm ci élection présidentielle bi nu dëkmal kafaat Xadi Njaay ca kër Mbay Fall moom daa mel ni ku dëkmaloon génn réew mi tegee nanu ko loxo ci gox fii ci Sénégal bam janook takk der ya nag nangu na ni moo def jéye ju ñu koy toppee kenn ka ñuy topp ci mbirum Mama Këndul di docteur A di nettali moom ci biir yéene nanu defaree faux certificat médical ba ak taxawaay ba ca infographiste ya am mbër yi di Ama Baldé Modou Lô nag ëmma ñoom ñoo